kii toog waxtu di tox chicha mu ngi mel ni tox nga ñaar fukk ba ci téeméeri bantum pon muy ñaax këru diine yi ngir rekk ñu gën a góorlu si wàllu woowee. dama xool gis ni Popenguine kat yëf yaa nga fay continuer xam naa ni nag dinañ ci waxtaan ak kilifay diine ya nekk te ñoom itam bañ ñu seeni askan te gëm naa ni buñ leen koy eggee dinañ ci wax la ca war. def ca la ca war. docteur Abdou Aziz Kassé daal di wone ay image yuy firndeel li mu wax loole nag nekkoon li nga xamante ne nii ñu bari daal nañ cee bàyyi xel tax na ndaw yi tamit ñoom daal di nañ cee jëlee ay loson ngir rek cigarette ñu bañ di ko foowee.